jërë ngeen jëf suñu mbokk internetu Thiès Info foo leen mën a ne ci àdduna nuyu nañ leen jaajëfal leen ni leen koy defee saa su ne tey nag ñu ngi ci Ndieye Ndieye nag nekk dëkk boo xam ne digganteem ak commune piir tollu na ci ñeenti kilomètres xam ngeen ni nag diggante altine jàpp talaata jëye ju metti moo fi am ndax benn waay bu ñuy wax basiiru mbay moom Basirou mbay nag dafa amoon euh, benn projet boo xam ne dafa bëggoon a tabax euh, jàkk ci benn tool wala barab boobu nag jur coow ba daanaka am ñu ko fa fekk daal songoog moom ba mu ñàkk ci bakkanam tey nag Thiès Info dafa ñëw ngir nag xam lan moo waral faat googule ak fan la faat gi mujjee ak justice bala ñuy sori dañuy jox euh, suñu wayjur euh, di Serigne Abdou Niang nekk ndijaayu bassiru Mbaye mi nga xam ne moom lañ faat euh, bu ko defee rek ñu am ay laaj yoo xam ni Euh, fas leen ko dugg moom góor gi euh, jëye ji am fii ci dëkk bi mu nekk jëye joo xam ne daanaka boo duggee ci dëkk bi rek atmosphère bi wane na ni daanaka dëy bu doy waar am na fi mbir moomu nan la demee. waaw moom di doom ni mu demee. salaamaaleykum noo ngi leen di nuyu di la xamal ni jéye bi de ni mu amee mooy terrain Basiiru bi ñu ko mayoon mu def fi daara ji daaray alxuraan la ñuy def fukki at la ñeent ci ren ah tabax na fi jumaa yi ñu war a julli waa dëkk bi wax ba def pelante ni ko doo julli ci jumaa ji mu ñëw wax ma ma ni ko bàyyi leen fa kuy wutu ay demal sa kër nga jullee fa daara jii ba mu waree jàkka yàgg na ostages yi amuñu fu jullee suñu fa tabaxee jàkka boo jógee jullee ko soxla kareet ci noonu ñeen say wajur nu jullee fa lii de ci la kere war a tabax jàkka ji tabax na ko bu mu àgg ci di nga moom fa euh, séenaat bu mujj ñu andil ko ci ay bureau ñoom waa dëkk bi di ki ñuy wax naa imaam sama jarbaata man mi wax ak yow ñoom ñaari nii bas mel ci man la mel ci man ni ko doo fi julli ba ma waxee ma ne ko demal nga julli sa kër dégg nga maam tabax jàkka ji fii ci daaray daara alxuraan ci la koy def fi jàkkalu buntu këram mbedd mee fi dox dem ba yàgg ñu indi ni ko doo taba jàkka doo ko fi tabaxee ba yàgg ñu posi ni daara ji noo ko bokk ñu di ko topp ba man ma jóge fii dem ci sous-préfet ci Pambal keroog maag Basiroo ànd ak ñeneen ñett sous-préfet maa ko waxee mu ne ma kuut ka kuut xaaral ma ba ëpp ba mu yore commercial ba daal di wo fi ma taxaw ni ko góor gi ñang day ab Ablaye ñang mi ngi nii taxaw Basiiru Mbay jàkkaam jooju muy wax ca njéey ci daaray alxuraan ja kut ka kut talaata réunion bi ñu def bu ñu jógee ci réunion bi directement njéey laa bëgg nu def ko yéen waa communal bi nu dem ca xool mbir ma mu dem fekk wax nañu ko ne ma nga tabax jàkka ja fa buntu jumaay ja sul préfet ñëw wàcc ca pénc ma fa jumaay ja la wàcc keroog ànd ak waa communal bi ñëw dox ba si fii ni ah jàkka ji di génn sax dëkk waxuma àddina ci buntu jumaa may dal di woolu borom tool bi may Basiru Mbay terrain bi mu toog fii communal bi toog chef de village yi toog mag fii toog gune yi ndaw yi sax ñëpp teew ilimaan teew Basiru ngi fi maa ngi fi man ko yilif mu dal di woo ëllëg mii tey ëllëg ñëw toog mu ni ko waa yow góor gi kon tey bi nga may waa dëkk bi ñu di ci soow ci daara ji naa ñoom ñëpp a ko bokk nu mu demee mu ni ko man dëkk bi musuma leen may meetar man dëkk bi musuñu maa ñaanub téere de dëkk bi kenn musuma cee ñaanub téere ba ma ba ma ma di fi may kenn man bara bii daara ji ne Basiir mi ànd yor daara ji fii mu xat mu ni sama ndijaay maa ngi dem ca ndijaay ëllëg ñaan ko barab bii ma def fi daara ji ndax yàgg-yàgg dañ koy tabax te tabax nag da téere boo moom ba mu demee moom fekk fa di yaayam ëllëg ak taawam ak i rakkam ba mu ko waxee di yaayam ëllëg ni doomam yi ana loolu lu ngeen ci xam yéen kat bu ngeen fi yéen laa ci tàggu taaw bi ni rakk yi lu ngeen ñu ni ko loolu amuñu ci lu ñuy wax bàyyi bu doon matal ñaari tere ba ñett jox ko ba si alxuraan moo nu gën a lu mën a doon tool ba la fa ne ëpp na juróom fukki kër te amoo ci ñaari dërëm da koo maye kon jox ko tere boobu mu def fi alxuraan ay daaray bi mu def ko bi fi jàngale ba ba nii ñu ko suytul max la ko mu ñëw samp fi jàkka ji di ko tabax. de su ca fa muy tabaxee lañ ko fekk ci yàq ji rey ko. loolu kañ la. talaata. talaata talaata jamono yi ay dix nangam dix heures trente onze foofu la toll. biñ koy def xanaa dëkk bi kenn niwu fi da xam nga dëkk bu ñu xëyee dañuy liggéey ñëpp kenn niwu quartier bi sax bu fi nit yi sanu doom yi rek bu fi nekkan xalaatul ñu egg ci moom ñëpp dañoo xëy liggéey kenn niwu fi booba. dootul xanaa ñoom yi def ci lu bon lii rek. ah mais xanaa chef bi nekk fi woon wala imam bi ko jiite moo coup d'état bi moo ko jiite. taala papa Dieye mi nga xay seen rakk la ak ñaari doom chef de village ak doomam ak sëtum. imam bi imam ak ñaari rakk mi bokkal ndey ak baay ci la ñu bokk sama jarbaat la ñu déggu li ma la wax seen ndey fa ne maa ko fa bàyyi bu fa nekkee ba léegi ni man waaye du tee ma wax dëgg yàlla ma gën doomu aadama ilimaan moo ñëw ànd ak ñaari rakkam ku ne ngee ak jabar ay borom kër la Aliou Guèye mais ca Guèye Guèye Guèye Guèye moom kenn kooku rek a ci bokk ak ñaari doomi sang Cheikh Mansour ak njag Guèye rek magam ñii ñoo rey Basirou. maanaam nan lañ ko reyee façon bi ñu ko reyee nan façon bi ñu koy reyee dañoo kabataatoo jaar nii fekk ko fee mu ne ca jàkka ja ay martu martu papa ji moo yoroon martu 5 kilo bi ak benn bërëmir comme yooyu ñuy wekkee pont dégg nga mañ ci def jaasi kub kub yu mag yooyu lañ yor ñu yor ay paaka ñii daa gor diggam bi bi ba ak yii boo ko xoolee da dégg nga moom comme kuy gor poojum nag ndiggam di jaas ji man man nga cee teg sa loxo mu jeex jaas lañ ci gor. bàyyiwuñu fen daal comme nañu réyee woon Ousseynou Karbalaay noonu lañ def aussi fu ne roof lañ fi paaka génni fu bopp bi papa jiyee tiim ak martu di ko toj mel ni kuy xar muul boo soxla da koo ba bët yi daa wax. dégg nga maam nii la ñu reyee Basiru dégg nga maam ndongole. leneen bi sànc ba ba mu nekkee ci sànc ba moog doomam ñoo fa nekkandoo woon wala. doomam ñaari doomam sax ñoo fa nekkandee woon xam nga bu ñoom pare waar yu ñu xeex xam nga guddi gànnaay ba fekk la fi ngeen ngeen nekk ci liggéey bu bëri yi képp xam nga yow bett nañu la jenn doom ji sax la ñu gaañ noonu dégg nga moom ci loxo loxom dagg nañu ko xam nga ñoom bu doon xeex kon am na seen secret am na sax du feeñ. mais nguur yenn nguur yàlla may na kii kii bi mu def caméra bi mu def moo ko def mboolem ñoom ñi fa dem kenn kon yëpp bu ñu la ubbil kii bi waaw téléphone yi rek ci la ko ki kii moom ci la bokk kii yàllaa ko dimbali yaram dara waaye koy jaasi kii ñoo bokk day moog Basiiru ñu di ko wax As Ndiaye ñoo bokk ndey moom mi gor nañu koy jaasi dóor ko peel ci bopp doy def nañu ko. xam naa moom yow comme say tànk dafa naqari woon ba mën a woon a dem moom fekk na ko léegi dinañu ñëw ci moom léegi yow. Bassirou Bassirou tey boo doon def ci moom ay seede eh, ci wàllu li mu doon liggéey ak muy taxawu dëkk bi lan nga mën indi. ma ne la ñoom ñi ko rek ku ci defe na la wax ay say bokk mën a lu la ko mbaa bu ñu ko mën ñu la ko dama laa wax ni la. lu fi ne loo xëye lu lislaam di lu yàlla santaane diine lislaam ab jullit soxla ko basidoo ko fi liggéey bu leen moom du fi taxaw ci dëkk bi daara jii ñu ko reye nga xam di nga moom mooy dixième daara bi nu sanc moom ja ko jur ko fi andi fanweeri ak ñett jàngale ñu ko ñu andi soog a andi ñu soog a daara ji daara ji ren la fukki atam ak ñeent jumaay buy am ci dëkk bu leen ba si dëkk bi doo dëkk bii li muy réy réy mosu ñu am cinquante mille ñu moom mosu ko am maître maçon la ànd ak ay doomam mboolem ku mu jàngal métier moo wax leen da nga am ni leen dëkk bu toll nii na ngeen fexe ba dimbali ma nu fas yéene fa yéene jumaay ji nu liggéey ko te yàlla tax amul benn de benn loo xay lu ñu naa wax nañu ko ne dinañu ko ci jox juróomi dërëm entrepreneur yi fii yëpp siq daa ñoom ko le kenn ku ne da ko bind leetar ne ko dégg naa yow jumaay ji yaa koy liggéey waaye bis boo ma soxlaa wax ma ko maak sama ku may àndal ak ku ma jàngal métier dinaa la yendoo liggéeyal suba ba ngoon duma du ma la ñeer dërëm nii la liggéey jumaa ji ba liggéey ji jeex ba jumaa ji mat ñu xëy génne ko ni ko do dootu julli sax ci jàkka ji. lan moo waral loolu xam nga jàkk néegu yàlla la tey boo nekkee ab jullit war fa ñëw di euh, toroxlu ci kanamu suñ borom ci sa julli juróom lan moo waral tey waa dëkk bi ñoom itam ñenn ñi ni ko doo fi jullee. gi wax daa ci ñoom yàlla leen taxul a jóg. bu fekkee nit jëkki di nga am alaaji Abdou Si daa wax naa yàlla na nu bokk ci jullikat yi dëgg-dëgg yi te bañ bokk ci jullikat yi jullikat mooy yéefar yi nëbbu ne ci biir jullit yi teer xolub yéefar benn xolub diine wu lay defal yàlla nekkul ci ñoom imaam mii ma lay wax fiq xamu ci dara jàngul fekk xam nga lii mu ñëwee ku xam yàlla ñëwee woo ko bu doon imaam bu xam dara du ko def daa xamul dara addit sanante bi sama nii bi nga xay ñaani at beeg ne képp daaw daaw maa ko ko mu doon ko jàng barke te maa ko abal mu doon ko jàng waxuma la nag xam fu fekk xamu ci dara jàngu ci dara sëriñ bi képp ku xam yàlla bari na ku ñaa daa ñeme yàlla daa xamul yàlla ku xam yàlla doo ko ñeme di nga ko jaamu tab la mu la sant di nga ko def la mu la tere di ko ba kii nag xolam bi baa ko xëy ba ñettab luy niru jëfi jëlit du ko jëf sama dooma de yàquma ko sama jarbaatub lenqee ma rakki ndeyam a ngi mooy sama soxna kii moom ndeyam a bokk benn ndey ma sama soxna si ma ngi nii toog lii bu fekkee ne yoroon na xolub julit du àgg ci rey nit lii du ko def ku war a wax ak moom rek war ngaa wax wax nga ak moom ci génne ko ci mbir mi mu të. allo Bassirou jébbal nañ ko suñu borom wala mi ci loxo fii mën a tey la ñu ci jot fii mu ne egg na ngeen nekk. waaw ci dëj nekk. ko de ngeen di ko robi Touba àgg na. moom bàyyi woon na ñaata soxna. bàyyi na ñeenti soxna ñeenti soxna njaboot yi moom tubaarkàlla ndax xam naa ni astawaalo mii ah ah ñaar doom ak yi moom wér na ma Basiru war naa dem fii mu nekk de juróom-ñaar fukki atam de ñaar la war a manqué juróom benn fukki at juróom-ñett dem na waaw jërëjëf ndongali euh, waaw kon léegi aas euh, mi ñoo bokk ndey ak ñoo bokk benn ndey seen ndey sama mag jërëjëf Guèye